Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale internationale. biir jotaay bu am solo boobu doon nañ fa waxtaanee benn thème bu am solo bu jëm ci yar ak teggin ci diiney lislaam ñi nga xam ni ñoo ko doon def di ay waxtaankat. ñu doon amal boobu lay waxtaan sëriñ Xaadim Njaay Kayaar. ñaar ñi dëkk ngaay ak ñoo xam ni ndakaaru lañ bàyyee ko loolu yëpp nag ci teewaayu sëriñ maxtaar mbàkke di doom ci sëñ Moustapha basiiru nekkal ko ci dëkk boobu di ngaay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci jataay bi di balu ñëpp ak di ñaan borom bi subhanahu li ñu fi ñaan yëpp yal na ko ndungu ci ni mu toll moom ca sa mbërtal ko ci àdduna bi yëpp rawatina famille bi nga xam ne ñoom ñoo waral daje bi ak maam yi nga xam ne tey ñoom ñoo jiituñu di leen ñaanal xam naa dañu sédd fukki minute ak juróom mu mel na nuyoo bu yaatu du fi xaw a xaj waaye rek kenn ku ne yaa ngi ci suñu xool ñu ngi lay ziyaar incha allah bu ko defee ñu njëkk sant suñu boroom mi nga xam ne moom moo ñu may daje bii tey yal na ñu ko yàgg a may mu mel na nag dañ ñu waxoon ni ñu fàttalente lu dellu ci ay teggin maam sëñ Tuba wax nañu ni teggin yu ñu war a waxtaanee moo ñuy yóbbu aljana moo ñuy jokkale ak suñu borom te loolu wax noonu boo demee mbokkam Sidi Xaaji Malik radiallahu taala anhu noonu la ko waxee ci adabul masjid wax ni tasilu bil amali lil jinaani bi adabin tasilu lil rahmaani fa mel ni benn néeg lañ toogoon bi ñuy bind ku nekk xool sa morom loolu mooy wane ni benn source la la ñu jëlee ñoom ñëpp mooy alquraanu karim di kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ñu nuroo ci waxin nuroo ci jàngale mu mel ne nag ñaar yooyu boo ci am boo demee aljana ci gisuloo sa borom neex neex bi dana des ci ñoom wax nañu ni jëf yi mën na laa yóbbu aljana wante teggin yi moo lay gisloo sa borom te nag gis borom bi moo dax aljana kon tomb bi ñu war a waxtaane am na solo muy wàllu teggin teggin nag ñett ci lay aju mooy doomu aadama bi ni mu war a amee teggin ak boppam ni mu war a amee teggin ak boromam ni mu war a amee teggin ak doomu aadama yi nekk ak moom an tahfada rasa wa ma waa nee na bopp bi sa bopp ak lépp lu aju ci bopp bi nga siddu ko cëram xañ ko li mu moomul bu ñu waxee bopp nag kon bët a ngi ci nopp a ngi ci làmmeñ a ngi ci yooyu yëpp pour nga mën a am kersa di nga bàyyi xel ci bu ci nekk lan nga ci war a jëfandikoo lan nga war a xool ak loo warul a xool sa làmmiñ lan la war a tudd ak lan la warul tudd loo war a déglu ak lu sa yoon nekkul waroo ko déglu kon mu ne beneen mooy wa an taxfadal euh, na wa ma xawa mooy sa biir ak li mu ëmb yëpp nga bàyyi xel ci li mu moom ak li mu moomul bu ñu waxee biir kon li ngay lekk dugg si na waaye sa pay dugg si na kon nga dégg ci ni moom détaillé na leen lan mooy kersa ca kon sàmmoonteeg yii nii mooy teggi yi lislaam bëgg ci doomu aadama mu ñu leen beneen bi mooy foo leen toog di leen bàyyi xel ci dee de leen ko fàttaliku ndax fàttaliku dee dana tax nga waajal ko mu ne ko beneen bi mooy ku bëgg ëllëg am teraanga bàyyil taar taari àdduna yi muy daal ku def loolu jàppal ne am nga kerse kon bu ñu jàngatee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa wax danañ ci gis ni kon nit day jëkke boppam ci wàllu teggin mooy dangay ngay fonk sa bopp waaye da ngay xel sa jëmm ji xam ni ëllëg loo jëfandiku danga ko lay ndax kat borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni fa amma man taxa wa aasara alxayaata addunia fa in aljahima hiya almawa waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa in aljannata hiya almawa kon loolu kese bi njëkk mooy loolu ndax doomu aadama bu bàyyiwul xel boppam keneen ku mu bàyyi xel tam dafa lay nax bu bàyyi xel boppam nag mu bàyyi xel boromam bi ko bind subhanahu wa taala am teggin digganteem ak yàlla ca loolu paase lim la sant nga nekk ci lim la tere nga bàyyi ko. ah oustaz Khalifa nag wax na ko léegi mbokk yi yar ñetti xeet la maanaam teggin waaye bi ci ëpp solo te ñu koy jël ñun mooy comme ni ma ko waxee sa diggante ak sa boroom waaye sa diggante ak jaamu yàlla yi moo tax boo demee ci mbindum mag ñi dangay ngay fekk sëñ Tuubaa di wax naan kun muta addi ban ma ar rahmaani wa ma a xalqihi bi kulli shaani fa man fa min ta addubika ma a rabbil bashar tarku ictiradika alayhi fi l qadar sëñ Touba nee na na nga am ay teggin sa diggante ak sa borom waaye itam na nga am ay teggin sa diggante ak jaamu yàlla yi nee na sa teggin sa diggante ak sa boroom mooy lépp lu mu dogal na la neex lépp lu mu dogal na ko nangu waaye mbokk yi bokkul ci ay teggin yàlla dogal ci li ko ci jaam bi nga ni man li yàlla dogal neexu ma wala li yàlla dogal ànduma ci waaw yàlla dogal nga ni ah lu tax nangam amul lu tax yàlla defewul nangam yàlla laa yusalu amma yafaal wa hum na yàlla kenn du ko laaj lu tax moom dong sañ laaj kenn ku ne lu tax mbokk yi bi ci des mooy sa teggin sa diggante ak jaamu ak yàlla ba tey bokk na ca dañuy tere ci julli comme ni ko oustaz waxee booy julli ngay siggi di xool asamaan bokkul ci ay teggin dañ ko tere julli bi dañu bëgg buy julli fi muy teg jëwam na teg foofu bëtam mbokk yi lu waral loola mooy dañu wax ni jaam bi bu taxawee di julli war na fonk suñu borom subhaanahu wa taala ba sax war naa am kersa donte la mi ngi ci kaw nga ni xëj di ko xool kon lii teggin mooy booy julli nga jël sa jë sa kanam gi teg ko fi ngay teg sëb jë loolu ay teggin la mbokk yi ku ne xam na ni booy julli booy rukoo wala ngay sujjoot doo fa jàng alxuraan loo fay wax danga fay sàbbal yàlla ñu ni lu tax loola boroom xam-xam yi wax ni loolu day wone sa teggin yi nga am ci biir julli gi ak sa borom comme ruku ak sujjuut ñaari bërëb la yoo xam da nga fay wàcc sa bopp da nga fay toroxal sa bopp kon foofee kenn du fa wax waxi yàlla kenn du fa jàng alquran waaye da fay jàng ay sàbbal loolu lépp day demaat ci euh, maanaam ni ñu war a amee teggin suñu diggante ak sa borom mbokk yi ba ca des it mooy alxuraan day wax ni allazina hum ala salaatihim daimun ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy taxaw jub xocc ànd ak tuma niina ànd ak xusu ustaas wax na ko léegi képp kuy julli war ngaa xam ni am nga audience bu rëy ak sa borom te nag bu toll ni jàkkaarloog ba bi subhaanahu wa taala mbokk yi kenn waru koo foye kenn waru koo caaxaane war nga ànd ak dal wala ànd ak teg wala ànd ak toroxlu waaye itam mbokk yi bu ñu demee ci teggin yi war a dox sa diggante ak jaamu yàlla yi la ca jiitu mooy foo fekk ndaw yërëm ko ni baay di yërëme doom foo fekk bu dee jigéen la itam foo fekk xale na nga koy yërëm ni ngay nit yaay di yërëme doom mbokk yi foo fekk mag na ko wekk na ko cëral waaye itam koo gis def ko ni sa bopp bañ a xeeb kenn loolu mooy ay teggin moo tax Sëriñ Tuubaa wax ni amma ta addubu ma al xalqi ka an tubajjila saxsal kabira xaysu an wa tarxama saxsa saxira kal walad wa mislaka ijaalannaka nafsika tufat nee na foo fekk mag na ko yërëm waaye na ko wekk foo fekk ndaw na nga ko ñeewante na nga ko yërëm waaye koo gis itam na nga ko def ni sa bopp mbokk yi bokk na ci teggin yu rafet mooy koo gis nga bëggal ko li nga bëggal sa bopp nga yéene ko li nga yéene sa bopp waaw bul bëgg lu baax yéene nit ñi safaan déedéet ki yàlla yónni woon nee na laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi yonent bi nee na kenn ci yéen du gëm yàlla ngëm yàlla mat lu dul lim bëggal boppam ci mbaax loolu la bëggal doomu aadama yépp waaye ca dëgg-dëgg bokkul ci ay teggin nga jàpp ni yaa gën kenn déedéet koo gis sax jàppal ni xëy na moo la féete kaw moo tax mu ni wa kun ma an naasi jamian dëhraka kama tuhibbu an yakunu maaka sëñ bi nee na waxtu woo toll rek koo gis muy doomu aadama jox ko cër jox ko cër bu mat sëk cër boo xam ni moom nga bëgg ñu jox la ko jërëjëf mbokk bokk na ci ay teggin sax boo nekkee ku la mag ci at ëpp la mag la maanaam ngalawaay boo ñëwee jox ko cir bul toogandoog moom sax nee nañu lu dul boog daruura lu mënta ñàkk waaye gis nañu tey suñu ndaw ñi xaw nañu ñàkk teggin ci côté boobu dangay gis xale bu ndaw toog ci jataay mag mu màggat lool ñëw waaye xale bi du yëg ni sax moom war naa jóg place bi jox ko bi ci des mbokk yi xoolee da dem fu mel ndakaaru dugg ci dem dikk wala ci biis tataa yi gis xale bu tuuti toog mag mu weex tàll ak bijaaw taxaw mbokk yi xam ngeen ni loolu ko ci ay teggin ay teggin mooy faa foo fekk mag nga teral ko waaye nga yërëm ko nga jàpp ni kii kat sa jur la nga wàcc fa nga toogoon jox ko ni ko toogal loolu moo am solo nag déglu na conférencier du jour muy sëriñ Khadim Ndiaye kayaar sëriñ Khadim daaw bokk yi dañ laa ñam te doyulunu nga doxe ko noo xamante bi defe ko noo xamante bi daaw xol yëpp a tooy xib sedd guy ñu bëgg nii xol yi tooyee te xalifa tooyal ko ak oustaz jiite ñu bëgg nga sof seen kaw gën a dundalaat suñuy xol tooyalaat ko ba bu nu fi jógee am bind yu bees tàq yoo xamante bi des ko mën a jën di ko jariñoo suñu gërëm dund ba déwén ngeen sarse waat ñu joxaat ñu leneen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu ci bis bi di leen siyaar ci bis bi di leen baalu àq di leen baal di ñaan suñu borom mi nga xam ni mooy borom njéggal te képp ku mu jéggal nga mag jéggal ñu ñaan ko mu jéggal suñu bakkaar yëpp nuyoo boobu nag ak siyaar bi ñu ngi ciy jiital leeruk sëriñ Touba gi teew ci jataay bi si Abdou Samane Mbacké di ko siyaar bu baax a baax waaye di nuyu baax sañ Alsaan Jaañ bi nga xam ni mooy kilifa jataay bi di ko jotal nuyoo ak rakkam yu ak ñi nga xam ne ay ñoo mooy seen kilifa ñoom ñëpp ci jataay bi di wax nag ni tom bi na war a waxtaane mooy yar ak teggin xam naa dafa am dañ koy faral di boole waaye danoo wuute yar ak teggin bokkut waaye teggin yar dafa nekk ci biiram nit mën naa yaru te doo amee teggin waaye saa yoo amee teggin rek yarangu ci biir dinaa jox benn misaal di nga yar ab gone ba bu sukkee ci ndab day sukk téye ndab li di lekk loolu ab yar la waaye boo ko xoolee du xool benn barab fu ne ku tibb mu xool la buy lekk day tuur di lekk-lekk nu ñaaw loolu duy teggin xale bi mën naa yaru te du am ne teggin moo tax yar ak teggin bokkut yar dafa dugg ci biir teggin loolu dinaa ko leeral ci biir waxtaan wi mu ñëwaat ci teggin dana wutu sunna ndax tax doole ji ma am ku ne xam na ne boo demee ci ponk lislaam yi juróom la bokk na ci asaka asaka amul sunna soo demee yéen ko limee ay teggin lañ andi teggin yoo xam ni ñett la soo ko jëfandikoo moo jëfandikoo sunna ñooyam di nga am di nga am tuyaaba yi ku am na ndax li ko waral mooy yonent bi bari la wul woon bari la goo xam ni at mu jot mën naa la jël asaka di ko génne ndax bari la wul woon loolu tax amu woon sunna te na mooy lu bi saxoon di ko def nga xam ni kon foo boo xoolee teggin moo wuutu na ci asaka waaye asaka amul amul na ay teggin la am kon li muy tekki rek mooy doole ji ma ak tolluwaay bi mu yàlla jàngale ko ci fànn yu bari ni ko ñi ma jiitu waxee teggin dafa am yu dox sa diggante sa boroom am yu dox sa diggante ak mbindeef bu ci nekk yi dox sa diggante ak sa boroom mënees na koo tënk ñeent yu dox sa digganteek diggante ak mbindeef na koo tënk ñett li dox sa diggante ak suñu boroom mooy loola yàlla digal na nga ko def muy benn lu mu la tere nga bàyyi ko muy ñaar bu la tegeem natt nga muñ ko muy ñett bu la joxee nga sant ko muy ñeent ñeent yi moo dox diggante jaam bi ak suñu borom ciy teggin li dox sa digganteeg mbindeef yi ñett la ndax dafa am ñett ñooy dundal ci kaw suuf weesuwu ko ki la féete kaw mag la ak ki nga xam ne yaa ko féete kaw mag ko ak ki nga xam ne yéen a maase ka la kaw da nga koy wormaal moo dox sa digganteeg moom ki la suuf nga yërëm ko moo dox sa digganteeg moom ki nga maaseel nga def ko ni sa bopp ndax sa moroom am na noonu boo ko defee danaa danaa kii damaa yeb moo tax daanaka li li ngay def mag mu muñ ko nga def ko ki nga mag mu muñ ko soo ko defee sa moroom boo moytu di ngeen jote kon bokkut bu ñu ñëwee ci ni ko suñu boroom jàngalee xam ngeen ni malaaka yi sax suñu borom da leen jàngal ay teggin ndax li tax mu jàngale ay teggin ñeenti malaayika ngi ni yoo xam ni muy Jibril ak Mikaayil ak Ansraayil ak Isra Asrafi muy ñeenti malaaka yooyu muy sëñ Maxtaar Mbàkke mu sëriñ mustafaa Bassirou nekk ak noonu fii ci ngaay te rafetu nekkin lool ci ànd gu ma fii ci dëkk bi bi mu ñëwee fekk na fi rakam sëñ Abdou Samad ñu leen di sant baax leen gërëm bàyyi mag ñi dalal leen bu ko defee ñu delluwaat ca toogaay ya jubluwaat ci waxtaan wi. Mikaayil demal Mikaayil dem suuf gëdd ko mu dellu ginnaaw mu woo Israafil mu ñëw muy dem suuf gëdd ko mu dellu ginnaaw mu woo Asraayil bi mu agsee suuf gëdd ko mu wuti ko. suuf gëdd ko muuti ko mu tibb ci suuf ñëw yëf suñu borom suñu borom ni ko nag ku ñàkk teggin nga waaye ca la xàjjalee métier lay métier yi malaaka yi mu jël jibril dox ko jax def ko muy dox diggante ak ku mu yónni di andi wax yu muy benn mu jël mikaayel jox ko taw bi ak wërsëg yi mu jël israfil jox ko ngelaw wi daa jël asraayil ni ko nag segam nag yow ñeenti yéen ñi ma yebal ñëpp kenn ku nekk ñetti malaaka yi jiitu ku dem jëfanay teggin yow nga ñàkk teggin ñàkk teggin suuf dinaa wan ñàkk teggin li muy jariñ daa jël dee dox jox ko moo tax ñu tuddee ko malakul mawti waaye tudd ko woon Israayil la tuddoon kon day wane ne suñu borom dafa dafa séddale bu ñu ñëwee ci malaaka yi suñu borom da leen yar yarin woo xam ni xam ngeen ni yar ak teggin moo jiitu àdduna ndax aadama ba ko suñu borom xamalee xam-xam boobee woo malaaka yi malaaka yi xamuñu ko suñu borom dafa jël benn siis teg ko aadama toog ci malaaka yi sukk ci kanam mu yar leen aadama moo yar malaaka yi xamal leen loolu tax moo tax mala am na malaaka yoo xam ni danoo taxaw taxawaayu kuy julli yëkkati seen loxo du jóg mukk ba keroog duñ ci jóg ba keroog àddina tukki am na malaaka yi danoo rukkoo duñ ci jóg mukk ba keroog àddina tukki am na malaaka yi danoo sujjóot duñ ci jóg mukk ba keroog àddinay tukki kon li yar malaaka yi moo yar yonent yi bi sallallahu li ma waxoon ci ni teggin ak yar yar dafa dugg ci biir teggin boo xoolee addabani la wax addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla baatub yar bi mu bi ñu jëfandikoo ci dañ ko yonent bi da ko wàcce ban mën koo dégg waaye boo xoolee baatub adab baatub adab la andi adab mooy teggin teggin baatub teggin la andi waaye andiwul baatub yar ñun ñoo koy firee yar sax ndax foofu lañ toll waaye baatub teggin la andi rab bi waxul rabbaani rabbi dañuy addabani rabbi fa ahsana bii yàlla defal na may teggin moo tax yar ba dikk ci moom kon teggin nit bu ko amee rek day am ab yar waaye nit mën naa am ab yar te doo am ay teggin moo tax bañ bañ na ko sax olof ni mu koy jëfandikoo yar la wax yar yar nag boo ko déggee sa xel dem ci lu ñuy dóore nga baat bi nu jël wolofal ko mu ñëw ci ñun ndax ku ne xam ne xale bi bu defee lu jaaduwul soo ko dóoree boo lëgee mën na ko bañ a defaat lii ñëw ginnaaw kenn du ko tudd ndax li mu jaar ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax moo tax daraan wax ni sama wérdu ku ko yor di ko jëfe ni ma la ko kër goo dëkk kuy dem sawara du fa dëkk ñam woo tiim di ko lekk ku sukk ci ñam wa du dem safara Cheikh Ahmad Tidiane daan wax loolu moo tax mu dem ba àgg ci ni sama wérdu ku ko yor ba mu yàgg nga bàyyi ko maanaam kenn mënu laatee tàbbi sawara mos naa ko def benn conférence am ko ma laaj ni ma seexamante yaan dafa wax ni wirdam ko yor ba ba dog ko bàyyi ko faaw nga dem sawara ma ni ko waaw wirdam mooy lan moom ngay xam ba noppi mooy tudd yàlla julli ci yonent bi salaatu ala nabi mooy wirdam loolu kay ko bàyyi da ngay dem sawara ku tudd tudd yàlla jullootoo ci yonent bi dafa doo istixfaar booy faatoo dem sawara kon ñoom yar boobu nga xam ne moo am ci ñoom lu jaar ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jaar ci loolu moo tax wiru tijaan wépp dafa daan delluwaat ci moom waaye ku ne xam na ne wirdu tijaan moo ko mag bu ñu ñëwee ci luqumaan luqumaan boroom xam yi arab yëpp dañoo bindoon ci bu jëkkoon ni borom xekkam la woon yem ci waaye luqumaan ab yonent la woon li mu ñuul tax ñu def loolu ndax arab dafa fiir ci nit ku ñuul waaye boo demee luqumaan ñi xam dégg suñu borom ni muy waxee di nga xam ne nii yàlla doon wax ak yonent yi noonu la doon waxee ak luqumaan te boo demee ci saar yi nga xam ni saaram saar bi nga xam ne mooy sóotu luqmaan demal dem ci saar yi nga xam ni yuusuf yunus huut saar yooyu nga xam ne ay yonent la yàlla y waxal na muy waxeek ñoom rek noonu la yàlla waxeek luqmaan waaye borom arab borom xam-xam ne arab yiitu woon ñoom ñoo bindoon loolu ni borom xekkam la woon ndax li mu ñuul fiire ko waaye luqmaan ku ne xam na ni li tax mu dikk ci yàlla alquraanu karim yàlla indi ko ñaareel ni muy wax ak ay yonent muy wax ak ñoom ba noppi mu am daraja ju rëy kon nga xam ni kon loola eh, ab yonent loon waaye nag boroom xam-xam yi jiitu woon ñoom ñoo ko wàcce rek ni ku baax la woon maanaam borom xekkam la woon waaye du ci mën a xew bi muy dénk doomam di ko yar doom ji di ko déglu moom jàppoon nañ sax mooy jëkk a faatu doom ji waaye yàlla dogal na doom jàkk jëkk a faatu li ma la wax ci yar ni mu amee doole ci nit Luqmaan dafa toogal doomam di ko waar ci yàlla nga ay teggan dugg ci moom doom ji di ko yëg ndeke def fi doom ji toog ni muy yëgee waare gi ci moom ak teggin yi muy def ci moom diis na gann ci xol bi ba xol bi dog ba far mu faatu nga xam ne mujj ko jariñoo ndax ndax waare gu tar ak tolluwaay ak boo demee ci alxuraanu karim ci saar wa ni mu ko indee yépp bokk na ci sax benn rek laa ci indi am na fu mu ko waxee ni ko gis nga baat yi nga xam ne moom leen gën a sib ci baat yi mooy baatu mbaam mooy di ŋàll ko ci kaw bañ rek la say wax bañ a yem parce que loolu dafa nekk moo tax sax boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni mbaam saa yu ngaaxee rek gis na seytaane mu iblis saa yu ngaaxee rek gis na iblis nga xam ni kon mooy baat bi gën a yi bon ci baat yi ndax nee nañ bu buy ngaax di ngaax bay daaneel noonu mu mel ni kuy xëblee di tiit di tiitalaate di furti furti noonu ne loo tax baatam gën a bon ci baat yi nga xam ni kon loolu nag yàlla bi muy indi ay teggin ci saxaba yi daf ko doon jàngal saxaba yi ndax bokk na ci li nga xam ni ak ñàkk teggin la duy teggin mooy nga nekk ak sa kilifa yenn saa yi mu soxla war laa yónni wala mu war laa def loo dara nga toog ba mu yàgg rek nga rocc ko dem bi nga rocc koo dem moom xamul foo nekk loolu yàlla da cee doon saxaaba yi ndax danaan toog yonent bi sallallahu alayhi ba mu yàgg ñu jékki jekki rek gis koo xam ni day jékki daal di rocc ko rek daal di dem yoonam sallallahu alayhi wasallam yenn saa yi mu génn ni ana diw ñu ni ko ah moom day kenn xamul fu mu nekk dem na de toogoon na fi léegi de nekkoon na fi nangam de waaye gisatuñ ko de xamuñu fu mu jëm yàlla nag ni loolu du teggin daal koy aaye saxaba yi moom lay wax ni xad yaalamu laahu lasina yatasallaluuna minkum liwaasan loolu yatasallaloon mooy li ñuy wax sa taxlu nga xam ne dangay ngay jékki ba mu yàgg nga rocc ko rek sa taxlu daal di dem sa yoon sa alayhi wa sallam laajte la du la gis mu ni moo tax boo toogee sa kilifa mu war laa yónni wala mu lay war a def dara dangaa war di jekk toog ba jekk nga xam ne saa yu la soxlaa rek bu lay nga rek ngeen maa ngi nii wala booy dem nga tàggu ko moo tax ñàkk tàggoo ñàkk a tàggu sa kilifa loolu du ay teggin ndax benn boroom kër sax danoo wax ni bu tukki woon amul droit jékki-jékki rek ñu xuñeet ñëw ci këram te yëglu wut dañ koy aaye war nga war naa war na war nga ni ah man de maa ngi dem waaye ñetti fan laa fa war a am ñu ni waaw bu ñetti fan yi jotee waa kër gi moom ku ne ñu ngi lay bàyyi xel xamul nag ban aar ngay ñëw mën ngaa ñëw suba gi mën ngaa ñëw ci ngoon gi mën ngaa ñëw ci nàngam suñu maa jamono yi nga xam sax léegi moom yëf yi moom daanaka fi ne sunu baas bi ñu toog mooy àdduna jëpp ndax fi ne li ñuy wax nii mënees na ko jàll ba waa Amérique di ko dégg kon àdduna jépp a ngi nii nga xam ne tey boo yoree portable dem tukki war fa am ñetti fan war a ñibbisi yàlla dogal la nga lijjanti lijjanti ko ci ñaari fan yi nga war a ñibbisi war ngaa woo sa waa kër ni leen maa ngi ñëw waaye dañuy aaye sax nga jekki-jekki rek tukki ñëw bet sa kër loolu dañ koy bañ ndax benn lu ne dajaa mën am benn bi mën naa nekke loo xam ni mën ngaa ñëw gis la fa naqari te mën naa naqaril dund ba ci seen ci kër gi te yaa yilif kër gi kon faaw dangaa war a yëglu doon sax yaa leen yilif dangaa war a yëglu bu nu ñëwee ci nii ma la waxee ni la li tax teggin am doole bokk na sëñ Pape euh, Abdou mu ngi koy nettali léegi mooy xool maa zaaxal basaru wa maa taxaa yàlla dafa tagg yonent bi ci ci xool bi ko yàlla wooy ba mu ñëw mu ngi nekk fu bees foo xam ne mu ngi fay door a dikk waaye nekkul fu ne mu wér wir wér jëm fa moo tax Seera Faal bi mu jëbaloo sëñ Tuubaa da ko ne wax ma laaj la sëñ bi ni ko waaw mun ko ab taalibe bu toogee sëriñ nu muy toogee ak moom booba teggin la bëgg a andi sëñ bi ni ko bu mu toog moom di ko wéeru bu mu toog ak moom di taal ay tànkam bu mu toog ni màkk di ko xool kon bu mu ko sori ba bu ko sëriñ bi jox day day yóotu bu mu ko jege ba bu ko sëriñ bi jox day banku kon loolu mooy teggin. yàlla dafa sëñ Mokhtar Mbacke ñëw na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ko jaar ci sëriñ Alsaan ak sëriñ Mor ak njaboot gi yàlla ak fonk njaboot itam moo tax mu teew fii tey ndax démb la màggalam gi mu doon ko def fii ci la nekk nag coono yaag lépp tey ji itam mu xëy doon ñaanal waajuram sëñ Moustapha Bassirou ndax bisi ni tey ji la wàccoon mu doon cee wàccee kaamil nekk ca ba moo tax mu xaw a naajee ñëwul naajee ñëw kon loolu nun bu nu ko defalee war na noo yëg loolu donte yëg nanu ko ndax loolu rëy na ndax xam ni lépp moo ko moom waaye comme que jàpp nanu ba noppi du nu topploo fonk njaboot rek ak yërëm njaboot moo tax mu def loolu kon noo ngi sant di ko gërëm nu delluwaat di leen nuyu di leen siyaara tey ñaan képp koo xam ne si teewlu nga kàddu sëriñ maxtaar yi teewlu bi koy teelu yàlla na doon sa saafara ci jàngoro yépp sëriñ maxtaar wax ni boroom xam-xam yi toog di imaam xalifa imaam abdullah ak sëriñ xaadim njaay kayaar xam-xam bu sel bu rafet bii ñu fi doon sotti tabaarakallaaw ñu ngi leen di jéggulu ci dog gi ko dog ndax sallallahu alayhi dafa wax ni ijlaalul xaalimi ka ijlaalillaahi tabaaraka wa taala màggal borom xam-xam mi ngi mel ni màggal sunu borom kon ñu ngi leen di jégglu se di leen ziyaara di nuyu Serigne Alassane mi nga xam ni tey mooy kilifa jataay bi ànd ak rakkam yëpp dale ko ci sëñ Ibrahima jaañ ak mbooleem ji topp ci ñoom mi ngi leen di nuyu Serigne Fallou di leen sant di leen gërëm Serigne Makhtar wax na ni dëkkandoog yéen dëkkandoog moom rafet na jàpp gi ngeen ko jàpp rafet na jàppin wi rafet na yëg na ko xam na ko wax na ni bisam bii bii ñu ko jàppee xam ni tey ak seen bis bi sotti ci ak def ci la rek moo tax ni ko ko sëñ Ibrahima waxee léegi mu toppalan ko ndax xam ni ñaari bis yëpp moo ko moom ñaari bis yëpp yéene ko moom ndax sëñ Ibrahima Diagne mi leen fi nekkal nee na jëwriñ la fii jëwriñ la ca liggéey boobee loola moo tax ñu doxal ko démb moo xam ne itam mi ngi sant jigéen ñi bu baax ndax Eh, saa bu fi Moussa ñëw soxna Xadi Sàmb dana wëlbati ko laaj ay teranga teg ko ci loxoom mi ngi koy ñaanal mucc ak wér yàlla saafara ko sun borom waaye bi mu fi néew dem soxna Xadi soxna Jaañ def na lu raw na mu daan def kon soxna Xadi sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm yàgg mbooleem ñi nga bokkal askan wi yëpp nee nag mi ngi sant yéen askanu Njaañ wii ni ngeen ànde jàppoo ko nekk ko benn su sañande yi dëkk bépp noonu la ñuy def département bépp noonu la ñuy mel waay réew mépp noonu la mel kon moom na yombal mission bi nga xam ne si moom la ko Serigne Touba sant mu di ko doxal fii. sëñ Maxtaar day wax de sëñ Paate Jaxate bi mu ñëwee rek da ko nuyu ne ko sa maam laa nee nag dama bokk ak soxna Binta Jaxate bëggoon na mu leeral ko ko ba mu xam ko bu baax ndax ak bokk dañ koy xam bu ko defee. wàccuwaay gi mu doon ci moom ak maam ji mu doon ci moom saa su ne mu koy dund ak di ko yëg wax na dëgg ndax sëñ Paate ko xamul bokk la dana la ko bu baax a baax a baax a baax kon ñu maase tàllal loxo yi sëñ bi defal nu ñaan amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin amin amin